al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak li jiyal li al ibadatu wal xidma jóg jóg ngir sàmm ndonal xam-xam ak labiré labiré labiré labiré labiré labiré asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokk yi nekk ci al ibadatu wal xidma yëpp Euh, di jéggulu ci yéex a tontu laaj yi nga xamante ne euh, lenn ci mbokki taalibe yi euh, laaj nañ ko mu jëm ci waxtaan bi ñu fi doon waxtaane jëm ba tey ci wàllu nouvel ordre mondial muy laaj yu bari waaye benn bi jëm ci lan mooy jublu ñi nga xamante ni mooy kuréel yi nga xamante ni ñoom ñooy ŋànk doxalin yooyu ak euh, di wéyal tëralin yooyu euh, ci àdduna bi loolu mooy seen seen jublu beneen laaj bi muy fan la seen euh, dayoog mën a influencé maanaam mën a fexe ba nit ñi li ñu bëgg ñu topp ci te mel ni duñ ci ànd ak sago loolu fan la dayo bi toll ak seen diggante ak ñi nga xamante ni la tuddee ay franc Euh, loolu bu ñu ci bëggee jéem indi ay euh, tontu rawatina si lu njëkk li muy seen ambition am seen jublu euh, seen jublu weesuwul ñoom ñu doon ay kuréel yoo xamante ne dañuy kuréel yu yu bëri doole buñ ne bëri doole dañ naan ci wàllu alal ndax ñaare Euh, dañuy yor alal yu bari euh, di contrôler tamit ay patrimoine bu bari di contrôler tamit ay barab yoo xamante ne day jur xaalis wala di liggéey ci xaalis yu fasantikoo te nekk ci daanaka àdduna bi yëpp te saa su ne seen am-am googu du ñu bëgg dara loo xamante ne da koy gàllankoor nga xamante ni. Euh, bokk na ci seen liggéey di liggéey liggéeyloo ay boroomi xam-xam yoo xamante ni dañuy xalaat ay ay ay scénario maanaam ay ay ay xew-xew yoo xamante ni seen xel rek lay nekk waaye lu mën a am la ci ni ay crise yoo xamante ne dina mën a am waaye bu amee ñoom naka la ñuy def ba génn si nga xamante ni seen alal du ci sànku waaye waxuma laa seen alal sànku si waaye naka la ñuy def ba seen alal gën see yokku bu fekkente ni Euh, situation crise yooyu am na euh, mieux am na su ñoo xamante ne sax daanaka dañuy dañuy mébét dañuy dañuy lal ay plan yoo xamante ne situation yi day am moo xam ci réew moo xamante ne bëgg nañ fa pénétrer waaye pénétration bi euh, yombul mu am ay réticence réticence yooyu nag muy dëgër gi lu koy waral mooy ña fa nekk seeni xalaat ak seeni xel dem na noo xamante ne lañ leen bëgg a indil euh, dalul seen xel ba tax euh, ñooñu ñu indi ay ay ay ay ay gàllankoor ci la nga xamante ne moom la ñooñu bëgg bëgg doxal bu ko defee ñii da gis ni nañu waxee woon ci euh, ba ñuy expliquer jumtukaay yi nga xamante ni ñi ngànk li moom la ñu yor waxoon nañ leen ni bokk na ci dañuy fexe ba ña nga xamante ni ñooy kilifa yi nekk ci àdduna yi su ma nee kilifa nag kilifa gi mën na nekk njiitu réew mën na nekk njiitu kuréel kuréel yu am doole mën na nekk nekk njiitu diine mën na nekk nekk njiitu politique mën na nekk nitu nitu nitu média bu bu am bu am bu am influence ñooñu ñëpp ñoom ñi nga xamante ni ñooy euh, ŋànk li nga xamante ni moom lay ñuy wax nouvel ordre mondial dañuy doon ñoo xamante ne dañuy nekk seeni alliés ñu di leen di liggéeyloo ñaare ñu xam ko mu ci ëpp wa ilaa sax ñu ñàkk ko xam kon mel na ni bëgg saa su ne seen intérêt di di di sàmm bëgg saa ne seeni am-am di yokk bëgg saa su ne euh, euh, euh, lu ñu bëgg di doxal ci àdduna bi loolu di mën a dox te dara du ko mën a gàllankoor bokk na ci li nga xamante ni mooy seen seen ambition seen ambition yi ñu ko waxee woon rek euh, bokk na ci ji fexe ba maanaam euh, adduna bi mel ni euh, benn dëkk benn kër benn ëtt boo xamante ni doxin yi ak habitude consommation yi maanaam nit ñi ni ñuy ni ñuy jëfandikoo yëpp dañ koy standardiser maanaam dañ koy def ba mu mel ni dont nit ñi fu bari lañuy bàyyikoo bàyyi bu uyu téléphone jotee kenn ku ne bu yëkkatee téléphone am rek na ko kii defee naka la kii di defee bu ñu soxlaa jëfandikoo frigidaire la ko kii di jëfandikoo la ko kii di jëfandikoo marque bu génn tey états na muy amee senegal noonu lay amee ci réew yëpp te it kenn ku ne danañ fexe ba lu génn balaa ngay am jàmm da nga koo da koo am àgg nañ ci àgg nañ si boo seetloo ci wàllu téléphone la njëkk fexe mooy fexe ba kër gu nekk am gën gaa néew benn ba ñu doxee tuuti ñu fexe ba kenn ku ne ci kër gi am boo xamante ne sa bopp bopp lay doon te loolu yëpp da nga jënd may ñu la ko saraxul la ko boo ko jëndee ba noppi crédit gi yëpp da nga koy jënd yemutuñ ci loolu bu ñu ñëwee na la tey bii mooy es nangam balaa nga koy ut moo xam da nga koy leb moo xam da nga koy jënd dajale jënd ko balaa ngay suqaliku ci fay gi ñu ne la es es es nangam euh, jeex na es euh, nangamati moo moo moo xewati nga xintu woo am ko ñu dugal ci loo xamante ni wan la ko ci ay média wan la ko ci ay euh, publicité wan la ko ci fu ne noo xamante ni daanaka doo ko mën doo ko mën a ñàkk te it xam nañ nit ñi ci seen xel noo xamante ne ba ci couleur yi nga xamante ne lañuy ñuy wane produit bi ñu bëgg nga consommé ko yan couleur lañ koy def ngir mu mën laa dugg dañ koy xam boo xoolee tey jii ci opérateur téléphone yi rek bu ñuy pénétrer gox niñ fay duggee rek ci ngay xam ni ñuy seeni xalaat du xalaat yoo xamante ni xalaat yu ñuy tëral tey la liñ fi doxal nii tey xalaat nañ ko ëpp na ñaar fukki at. lañu ñu nar a doxal fii ak juróom fukki at tey jii boo demee ci yooyu la xalaat romb nañu romb nañu euh, euh, li nga xamante ni ginnaaw Covid bi loolu lañu loolu la doxal loolu nësër nañ ko ba teg ko barab kon euh, nañu bañ a woyofal lii maanaam nouvel ordre mondial te it nañu xool bu baax kenn ku nekk yow nan nga war a mën a di jëflante ak ñoom. ba ñu mën laa bañ a fàbbi rawatina ci sa wàllu ngëm ak sa wàllu pas-pas ndax ñiy jëf li ci ëpp euh, dafay jëm ci loolu xoolal rek ci wàllu habitude consommation tey jii kan moo mën a ñàkk banque te kenn ku ne xam na ni li ñuy doxal bu dul banque yu xalaal yi riba la ndax nga leb dara euh, teg ci dara fay ko wala nga jël sa xaalis denc ko denc ko bank euh, ñu jël ay intérêt ndax da épargne tegal la ko ci maanaam nga joxe woon masalan fukk ñu tegal la si eh, ñaar dërëm mais yëpp ay riba la tey jii ñaata ñoo mucc si lu mel noonu te tey jii mel na ni woyof na toy si ñëpp nekkatul sax débat yeneen noonu yeneen noonu yeneen noonu te eh, yeneen yi nga xamante ni ay produits yi ñu war yi ñuy consommer la am na si yoo xamante ni da nga dul xool bu baax sax lan moo ne ci biir mais li ci ëpp. lépp loo xamante ni lu lay euh, wàññiloo sa pas-pas ak lu lay koojal sa diine ak jëla yàqal sa tawhid rawatina sa ihsaan sa rafetal rek moo ci nekk kon euh, li ci ëpp ci li ci ne dañ ko waxante nag yàq la gën a nuróol ko defar yàq la gën a nuróol ko defar dëgg la àdduna bi moo euh, benn bët ëtt la boo xamante ni tey jii doon googu mu doon benn ëtt kenn mun ci dellu deltu ginnaaw kon nañu fexe ba bu ñuy dem ñu bañ a doon ñoo xamante ne dañuy doon ñoo xam dañuy consommer rek maanaam dem fa pour jëli rek nañuy indi waaye ba fa la fa nekk sax nga xamante ne lu ñu war a consommer la kenn ku ne da nga war a xool bu baax nax li ñu lay consommer loolu loo war a consommer la am déet bu ko defee yow bu la wóoree ne li ngay indi lu baax la nga fexe ba boo koy indi nga indi ko indi win boo xamante ne boo ko tegee nit ñi mën koo mën ko mën koo soxla mën koo jël ndax boo indee loo xamante ne lu mu baax baax baax waaye présenté woo ko noo xamante ne euh, nit ñi danañ ko xemmem ba jël ko duñ ko jël dañ ko fay romb kon loolu mooy li nga xamante ne moom laa bëggoon wax ci li nga xamante ne mooy seen ambition seen niveau d'influence nag foo ko takk weesu na ko nee naa la am na si ñoom ñoo xamante ne euh, maa ngi jégalu audio bi dafa guddoon <coughs> am na si ñoom ñoo xamante ne li mu la wax ci ay euh, euh, leaders maanaam ay njiit bu ñu leen di tànn ñu ngi leen di tàmbalee ci bu ñu amee fukki at ak ñeent nga nekk ci école dafa jàng ñu def entrée en sixième examen ba jot wala avant examen sax ñu gis ne yaa ngi am ay not yu baax ñu organiser concours général boo fa xamante ne ñoom ñoo koy pare parrainé seetlu xale yi dafa gën a mën a jàng may leen ay bourse toppaleen toppaleen ba ñu de dem dem dem dem bac orienté leen dem defi série scientifique dem defi science politique orienté leen seen cursus noo xamante ne seen lépp dañ koy mujj façonné ci seen xel ni ñii ñooy ñi nga xamante ni ëllëg mën nañu doon ay njiit ci réew yi def ko ci réew yëpp yëpp dajale leen di leen may ay bourse di leen invité ay séminaire di leen woo ci ay programme États-Unis ci ay kii kii kii alumni yi nga xamante ne dañ koy dañ koy dañ dañ koy def ba bés bu ñu waree doon ñoo xamante ne dañuy samp ay parti politique ñenn yi ñoo leen di jàppale ci xaalis ñenn yi ñooy influence ba ñu nekk ci ay poste de direction bu fekkee ne ci ay kër la këru diine ñu am ñoo xamante ne dañ leen di tànn di leen sponsoriser di leen jàppale di leen jàngal di leen xamal di renforcer seen capacité ba lu ñu mën ci influencer kër ga ñu di ko jaara si ñoom di ko def bu dee ay jigéen la rawatina ñooñu mooy jigéen ñi ak ndaw ñi nekk nañ nekk nañ seen cible ñu ut ay programme yoo xamante ne amatuñ lu ñu ci nëbb bu ñu ñëwee ci état bi dañ naan boo tëggee programme boo xamante ne pour entrepreneuriat des jeunes et des femmes ñu dugal ci xaalis xaalis yu bare bari bari nga xamante ni yenn yi sax doon lay doon boo ñëwee am na forum bu ñu mës organiser fii Sénégal nga xamante ni si àdduna sépp lañ koy organiser bu yàggul organiser ko ambassade Canada ba mu ñëwee di wax amul lu ci nëbb nee bu ñu dugalee xaalis bu toll nii ci forum bii dañu bugg jigéen ñi di jàng waaye bu ñu bëggee jigéen ñi jàng tamit newuñu ne nañuy jàng ba noppi di jur lu mat ay juróom doom kenn ku ne kon jub nañ ci ni bëgg nañu jigéen ñi ñu bañ a jur wala boog ñu wàññi la ñuy jur kon ni ñu mënee influence mooy li naan ko ëmb sa sànqal ëmb sa sutura boo doxal politique boo xamante ni amoo moyen yooyu doxalee politique bi boo deful nang nit dana la indil loo xamante ni nga yaakaar ni ma ngi lay dimb dimbali fekk tooke dong la la jox seen influence weesu na foofu foo ko takk weesu na ko li ñuy lëkkaloo nag ak li ñuy jëflante ak yeneen lobby yi bu nee franc-maçon ni leen jàppee ñoom ay système lobby la lobby yi nag bu la si kenn nax ñoom it seen i intérêt la ñuy yor bëgg di ko doxal seen nit ñu leen di teg ci ay euh, instance de de de décision ñoom ak ñële nag dañoo bokk ay méthode dañoo bokk ay ay doxalin dañoo bokk tamit ay moyen bu si kenn nax seeni Euh, jëfle jëf jëf jëflante bokk na ci euh, xaalis bokk na ci euh, di foloo nit ñi maanaam di di di fàbbi seen xel boo déggee États-Unis bi ñu naan doon wari bii happy mooy bul faale dara del del del bëgg saa ne àdduna yoom gàtt na gàttaay boo xamante ne dara jaru fee sonal sa bopp donc del del bëggee saa su ne ñoom loolu loolu foofu foofu foofu lañ teg euh, doomu aadama yi te loolu lañ war a sën dañu dañu war a dundal seen seen seen bakkan dañ ci boole di xuppe dañ ci boole di xuppe danañ xëpp waaye danañ xuppe dañuy xuppe kon dañoo bokk ay doxalin dañoo bokk ay ay ay ay ay jumtukaay dañoo doon ñoo xamante ni tamit seen jëf boo amul seet lu bu baax nga mën koo ràññale dana jafe. waaw am na beneen laaj boo xamante ni jëm na ci wax ne Euh, ndax ñoom ñi doxal nouvel ordre mondial li dox mbirum seytaane la wala mbiru bëgg fee effacé diine la waa xam nga bu fekkee euh, dañ na la euh, nañu nañu nañu nañu fexe ba dundin bi maanaam ni nit di dundee doon dundin woo xamante ne ñëpp koy yemle loolu day daal di bëgg indi indi indi jafe-jafe tuuti ndax li seen li seen iblaat waxoon ni ab jullit moom euh, booyaleesu ko nee moom kenn wattalu ko wattaleesu ko dañ koo tënk jatan ko noppi takk ko ci ab gétt xam nga ki ñu tënk jatan takk ci gét kooku sañul fu mu neex jóg dem dem ruuri moom lañ ko lañ ko lañ ko tënk ak lañ ko jatan ak ak ak ak ak ak gétt gañ ko gañ ko gañ ko gañ ko gañ ko gañ ko yeew mënu ko weesu donc bu leneen ñëwee ne ko yow mii lii baaxul ci yow li njëkk def mooy nañ dagg tënk bi mu pare ci loolu ñu ne ko nañ dindi jatañ waaw mu pare ci loolu mu ne ko nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu dindi gétt gi mais loolu day day day am problème kon dañ la naan dañ ko dañ koy bëgg a mel ni ne ko yow dañ la mbaa yàlla defal lu la neex te loolu euh, ñële seen i dundin loolu la ñoom dañoo bëgg nee nañu àdduna soo xamante ne nit ñi dañuy am seen liberté bopp dañuy am seen seen seen seen seen féex li waaj ji ne ko bàyyi ma ma nekk ci mbedd bi di lëmbe lëmbe googu nag moom jullit du ko mënul ndax moom du loolu mooy li ko li ko tënk li tax ñu sàkk ko mooy jaamu yàlla tere ko boole ci tëkku digal ko boole ci ay dël ñii it bu ñu la nee bu ñu la nee dundale sa bakken dañ naan la jumtukaay yaa ngi nii ay bagage la jum ñi ngay dundale sa bakken lii la mu neex lool indi musique yi indi indi indi indi lekk yi indi naan yi indi jëfandikoo yi ah, euh, bu dee wàllu wàllu liberté ñu ne la bu la kenn tënk ci dara bu la bu ñu la waxee ni euh, doom ci li mu war a sosu mooy góor ak jigéen ñu sëy ci farata yàlla ak sunna su Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo ne la bu fekkente ni am na yeneen pexe yoo xamante ni mooy di la gënal mën nga see jaar lu am na premier ministre boo xamante ni ñëw na Sénégal am fitu jàkkaarloog président de la république waxu ne ko nañu nañu nañu nañu féexal góor jigéen yi nañu féexal góor jigéen yi mais kooku xamal ne la mu wax noonu du loo xamante ba mu ñëwee Euh, la loolu nekk ci xelam fu mu dem ci àdduna bi loolu lay wax kon loolu programme la bu yàgg bu rëy boo xamante ni nit ñee ko doon waajal di ko doxal fu mu nekk nii ñu commencé di ko di ko di ko déroulé dëkkam àgg na si ne waxuma la nit ak nit di sëy waaye nee nañ bu la neexee loolu ñuy wax zoophilie maanaam nit di sëy ay bàyyi ma ñoom daga daganal nañ ko système de consommation yi bu fekkente ni euh, ñoom loolu la ñuy doxal ñi nga xamante ni xool nañu loolu ne ñii mbiru seytaane la doxal dañuy xeex lislaam doo leen ko mën a weddil kon ci foofu laa ci bëggoon a mën a mën a tontu. beneen laaj bi nag mooy mooy man mooy bu bi ma ci gën a gën a ñor mooy nee na murit gi nag moom lan mooy rôlam lan mooy rôlam man de li ma jàpp mooy murit gi rekk moo waroon lëlu def ay ay ay séminaire woo ay kàngam ñu toog ne ñun ñii ñoo bëgg doon ñoo xamante ne ah li sëñ bi waxoon yaa ahlal bari yaa ahlal bari wujuleel bari bari saqaay nga xamante ni moom dafa woote woote bu bu fës woo ñëpp ñu naka la ñuy def nag ba influencer monde bi yëpp ñuy bëbb fi diinillaahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaban naka lañ koy doxalee mur gi ñoo war a def loolu murit gi ñoo war a doxal nouvel ordre mondial dëgg dëgg dëgg tàmbale ci woo naar yi nga xamante ni jàpp nañ si ñoom la lislaam gën a euh, euh, jëme ci kanam wala wala jëme ci kaw wala si ñoom lañ ko yaakaaree ba ñu xam ne la ñuy dara lislaam gu wow kongu mi ngi ci sëñ bi eggale ko feneen fu mu mën ci doon te ko yemale rek ci euh, di def noo xamante ni bu sunuy mbokki murit demee nekk ci yeneen i gox yaakaar ni woote bi ci ñooñee rek la yem déedéet ñooñu ay murit lañu ba noppi mais ñeneen ñi nga xamante ne bi ñu murit nekk Libéria nekk Sierra Leone nekk Afrique bi Sud nekk Asie Indonésie ñaata julli dafa ne Arabie Saoudite nekk ci dëkku naari golfe ba ñooñu xanaa gëmuñu ni li sëñ Tuubaa yor moo leen di dimbali bu fekkente ne am na mais nañu def ay programme yoo xamante ne dafa jëm ci ñooñu waaye nag bu ñu jógee sol sunu dàll dem ci ay dëkk di fa liggéey ci nouvel ordre mondial masalan tey ji buñ ko waxoon woote ko ci yoonu murit ne fu murit dem ambassadeur la fa nga ne fa war a woote loolu waaye booy jaay ña fa nekk yaa ngi yaa ngi dugal ca njaay ma war yaa ngi say dugal dugal boo fay liggéey nekkoo fa ka fa gën a jàmbaare boo fa nekkee am fa soxna soo xemem boo koy wax ci lislaam buy yeewu ci lislaam xam ne la nga ko doon wax dara new ci mais loolu day indi problème aw yoon moom bu ci ngànnaay jeexee xemmem téefa ci def murit yi ñoo war a yëkkati yoon wi doxale ko noo xamante ni ku leen seen lay ñodde sa xol di la indi ci lislaam doo ko sax tey loolu nag mooy mooy mooy taxawaayu murit ci li ma yaakaar man liggéey bu réy noonu boo xamante ne kenn ku ne sa liggéeyu bopp la taalibi laa bu ne sa liggéey bopp la loolu nag man dama yaakaar ni jaroon na nag tey jii ñu utal ko programme def ay lël yoo xamante ne dañ naan nag jot na mu ah, murit gi génn ci wolof gi murit gi génn ci Afrique gi rek murit gi maase ba fu laafu Seydina Jibril toll mu àgg fa drapeau l'islam di naaw ca kaw fu jub euh, euh, soorooru jumaa ju mag ji loolu loolu loolu loolu mooy liggéey bi loolu nag euh, mel na ni euh, lu muy nuru nuru lu jafe euh, lu yomb la waaye nag kenn ku ne sa bopp nga koy tàmbalee sa bopp nga koy tàmbalee mooy yeneen influence yi nga xamante ni nii mel na ne lëmb na jamono mel na ni kenn mënu see mucc yow nga xool ci sëñ bi moom lu wax ne leen xool leen sama jëmm ji moom sëñ bi lu ñuy xool bu ñu xool moom lu ñuy gis ah jëfe ndigal bàyyi tere si mun taxaa ko xool jëmmam bi jëfi ndigal bàyyi tere rek ngay gis loolu nag ku ci sax ah foo waaxu ay junniy junniy xol di baax di wañax la loolu moom moo tax laaj bii nga laaj nii moom ñor mu ñorin goo xamante ne man lii moo ci sama xalaat euh, beneen laaj bi nga xamante ni woo laaj nañ ko tamit laaj bu am am solo la mooy euh, ndax bor yi mënut a ñàkk ndax faw ñu continuer di di di di di di di di di di laaj bor gis nga ñi nga xamante ni ñooy wax wàllu développement nee naa fi sama exposé ba may ba def keroog ni ñoom dafa mel ni dañoo tënk ni ñoom ñoom ñooy yaxal ni lii mooy développement développement it fii lay jaar développement it nii lañ koy doxalee te développement Euh, li ci ëpp si ñi nga xamante ni ñooy économistes yi nga xamante ni ñoo ciy xalaat am na ñoo xamante ni dañoo gën a euh, yóbbu seen xalaat ci fonction consommation waaye lu fonction consommation am solo am solo investissement tamit da am solo rawatina ay infrastructure dafa baax ci développement ndax développement moom euh, waxoon naa li ay kilo maanaam ay jéego la processus maanaam dox la dox goo xamante ni dafa war a indi ay soppat soppar rawatina ci xel mentalité hmm? euh, waaye jële nit ci benn barab yóbbu ko ci beneen barab ndax nit dafa am ay soxla am na ci benn xalaatkat bu mag bu ne nit soxlaam yi dañoo dañoo toftaloo am loo xamante ne mooy soxlaam bu njëkk am soxla bi ci tegu ak beneen bi ci tegu bi njëkk mooy soxla yi lekk naan nga xam ne dañ koy wax besoin vitaux boo ko euh, saafara euh, ci euh, sababi saayri nii donte du lekk lay reggal du naana lay màndal waaye ci li nit ñi xam ak li ñu xam nit dafa war a di lekk ngir mën a am lu mu dëerlu war di naan ngir ay cellulam di dund kon besoin vitaux yooyu lekk ak naan ñu boole si sax bu neexee faj njàng loolu nit bu ko xësee saafara du ci yem bu fekkonte ni am soxlaam benn saafarawul boo ko joxoon dara loo xam ne ko tey saafara si sa soxla bi gën a far loolu lay njëkk a saafara maanaam lekk naan bu ko saafaraa ba peg ko mu amaat leneen lu dooleeku ci la mu am da gis ni li ñuy wax besoin confort maanaam soxla fu mu dëkk mu mu mu mu mu ut ko te dëkk ba dëkk ba mën na am ci tàmbali mën na ko jàpp muy ab sëngal waaye bu bu bu bu xawee am koom lu gën a dolleku da nga gis ni dana soppi sëngal ba wut fa benn pant bu gënee baax mu def benn euh, terrasse ba ba muy teg étage kon loolu mooy besoin confort am boole ci ay wata boole ci euh, baax baax yi nga xamante ni yëpp dana gën a yokk confort ba muy ñaareelu niveau bi nga xamante ni doomu aadama buy toftalee ay soxlaam bu réglé besoin primaire yi maanaam lekk ak naan yi besoin confort la ciy teg bu ñaar yooyu yëpp lijjantikoo nag ba nga xamante ni wax dëgg yàlla moom moom warkal la day amaat nag soxla soxla yi ñu xam ko maanaam besoin de prestige maanaam ñu xam ni diw di ko dégg besoin prestige boobu nag moo yamul fenn loo ci am tey bu fekkee da ngaa soxla waa Touba yëpp xam la buñ la xamee te waa Ndakaaru xam la di nga fexe waa Ndakaaru yëpp xam la bu xam nga yemee ca Touba Ndakaaru rek di nga bëgg Sénégal yëpp xam la bu Sénégal rek xamee xam xam la te Afrique xamu la di nga fexe bëgg ba Afrique xam la bu la ñooñu ñëpp xamee di nga fexe ba kii yóbbu nit ñi ca Mars nga bokk ci nga xamante ne dégg nañu dem nga Mars besoin prestige moom amul fenn foo xamante ne fa la yem léegi hiérarchie des besoins boobu noonu développement tam dafay xaw a tënku ci loolu te léegi nag bu fekkee standard yi euh, ñi leen ñoo ko yot li nga xamante ni mooy investissement ñu gëm gëmloo na ne léegi yow ci kii lay bàyyi ko ci bor looy leb ah euh, boo demoon ba gëm ko ni loolu noonu noonu la demee mais boo lebee danga koy dugal ci loo xamante ni euh, jural dana la mën a jural jural jëm kanam jëm kanam boo xamante ni bu dee leb nga tey lijjanti li nga si war a lijjanti bu subaa dootoo soxla leb mais seetlu indépendance bañ ne am nañ ko ba suñu jonn yàlla tey jii bés bu jot ñu ne la leb nañu bor bi ñaan nañu ñu ñu ñu dàqal ñu ko ba barab sàngam te ñaan boo gis ñu dàqal ñu ko xamal ne am na luñ ci fay benn ñaar benn dëkk boo mën a jël ci àdduna bi buñ ne dëkk bii bor yi mu daan leb moo tax mu jëm kanam xamut rek benn dëkk boo xamante ni ay borom moo tax mu jëm kanam amut amul si sa si àdduna kon loole waa laaj ndax bor yi dafay loo xamante ni mënta ñàkk pour ñu jëm kanam pour ñu développé wu kon laaj la bu jëra laaj li ci dooleeku mooy euh, sëñ tubaab mi nga xamante ni mooy suñu yaakaar tey ëllëg di suñu tegtal ak xalifaam yu tedd yi nga xamante ni ñooy ñi nga xamante ni ñoom la fi euh, bàyyi ñu ànd ak ñoom ñu ñuy tette programme yi nga xamante ni yëpp boobaak léegi ñu ngi koy doxal ban programme lañ fi doxal boo xamante ni bor moo ko liggéey raay bi nga xamante ni moom la sëñ Modou Moustapha doon liggéey mosul fanaanoo ñàkku kenn jumaa ji dërëmu kenn dugg ci masaalik gii benn bor boo xamante ni dugg na ci bu yoonu mu rek leb amul université bi it wóor na ma wóor yàlla ni sëñ Muntaxa jubluwu ci lépp benn dërëm def ko ci dëkk bii di Touba loo xamante ni day projet buñ fi liggéey liggéey ko ci yoonu murit ah ana ci ban la xam lañ ci liggéey te euh, euh, bor bor liggéey ko te moo ne li nga xamante ni mooy chantier yi nga xamante ni suñ bi engagé na ko yëpp jamono jamonoy jumaa ji benn chantier bu ci ne ñu sas ci murit yi ay ay ay sas jur na ci ñoom pas-pas ak yitte ba tax seen liggéey yi ñuy liggéey ci dem ci ay dëkk di toj ay àll fekk fa ay gaynde fekk fa ay segg fekk fa ay mbëfër dàqaleen toj dëkk ba di fa bay saab di fa bay gerte di fa bay dugub la fa ñoree ñu indi ko am na fi président boo xamante ne ba mu liggéey liggéeyam ba nga xamante ne war naa dem ba mu ñëwee di wax ak sëñ Ablaye daf ko ne liggéeyu murit yi statistique bi nga xamante ni mooy xayma yii xayma bu dee liggéeyu Sénégal jëm na kanam liggéeyu murit takku na ci lool kon wóor la ni bu fekkoonte ni Sénégal mi ngi def ay ay ay ay ay croissance ay taux de croissance maanaam ay yokkute di def ay ay ay ay manoore ci wàllu koom-koomam liggéeyu murit yooyu nga xamante ne ñoo nekk ci àll ba di di di di di toji àll di bay di sàmm seen ngoon di jàngale dafa amal njëriñ koom-koomu réew ma kon man dama bokk ci ñi gëm ni bor mënta développer benn réew rawatina bor boo xamante ne ba nga ko lebee la ci jënd wala investissement bi nga ci def boo ko xayma woon ak leneen lu gën a far xam ne loolu du benn benn yoon euh, farata ci li nga xamante ne mooy li réew ma soxla ndax am réew moom la ngay def ngir fexe mu jëm kanam mooy nga fexe ba nit ñi regg nga fexe ba nit ñi am njàng njàng mu baax mu qualité nga fexe ba nit ñi bu ñu bëggee faju faju faju bu am qualité loolu boo ko defee la ca des ah, buy développé wu yow boo amee mbell boo amul mbell da ngay développé wu dafa am dëkk yi nga xamante ne dañuy toll ci li ñuy wax transition démographique rawatina réew Afrique yi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi def ay pexe lépp pour ñu wàññi suñu jur waaye euh, xaw ma xar suñu borom la xam waaye nit ñi ñoom ñu ngi jur ba tax na euh, ndaw yi euh, ñooy ëpp mag ñi ak ñi gën a fare ndaw ñu gën a tuuti maanaam zéro cinq ans yi ak plus de soixante cinq ans yi ñu toll diggante quinze trente cinq ñoo leen ëpp ñooñu bu yàlla dogalee nga jàngale leen ba ñu ba ñu ba ñu mën a jàng am am am métier nga faj leen ba ñu wér nga fexe ba ñuy liggéey ba noppi ñu bu lim bu bu ñuy consommer képp maanaam chaque jour ñu xëy jënd mburu jënd café jënd suukar dix-huit pour ciy fay rek kenn xamul nu mu toll ci wàllu koom ci réew ma bu ñuy fay lempo kenn xamul nu mu toll ci ay revenu ci réew mi bu ñuy jàppale seeni ndaw muy seeni doom ak seeni mag di seeni maam ak seeni baay kenn koo xamante ne dina fi doon euh, borom borom ku ñàkk wala ku sonn du fi am wax guuma nag bu fekkente ne ay jullit lañu ñuy génnee asaka di ko joxe ba noppi asaka ja ñu di ko yóbbu si ñi nga xamante ni ñooñu mu yee lool Chine ci loolu lañ toll li ñu wax dividende démographique nit ñi nag buñ koy wax buñ la koy wax tey jii ñi nga xam ne ñoo koy xalaat buñ la nee faj wax la euh, euh, njàng dañ ci boole ne wàññi jur gi wàññi jur gi nag wax ju dëgg wàññee jur gi. ba nga xamante ni taux de croissance démographique bi toll ni dafa dafa dafa dafa jege un wala mu yées un dootoo mën a renouveler sa population màgget yi dañuy daal di ëpp ndaw yi te bu boobaa ñay ñay ñay ñay liggéey li ñuy supporté dafa bari ndax day ay màgget yu bari ñoo fi nekk ak ay gone yu bari kon loolu dama ko ci boole woon ci tontu bi rek waaye dëgg dëgg li ma bëgg wax euh, li nga li nga laaj mooy man li ma xalaat ak li ma jàpp. bor mënta développer benn réew ñu ngi jéggulu nag ci euh, waxin wi ak di jéggulu ci bu dee am na ay njuumte wala lu xaw a ñagas ci li ñu wax di sant nag euh, ñiy déglu yëpp di sant tamit ñi indi laaj yi di baalu ak tey bale di sant nag ci euh, sëñ Xaadim gaa yu baax yi li ñu indi ci waxtaan wi nga xamante ni lu ñu war a mën a jëriñoo la te ñu bañ nag mu doon loo xamante ne dañ koy wax rek teg ko fi sànq daal laaj bi jëm ci wàllu yoonu murit nag moom ana fu ñu war a taxaw loolu bëgg naa ñu dellu si waat ci bu baax a baax a baax baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. Euh, sëñ xaar yi ñu baal ma mu am loo xamante ni bëggoon naa ko ci dolli mooy. Euh, xam nga euh, koom-koom maanaam ñuy wax développement bu fekkente ni buñ koy xalaat dañ koy xalaat ak si ni ko tubaab yi xalaatee ak si li tubaab yi jàpp moom mooy développement ñun boog Afrique bi ñu mës a développé développement man bi ma gëm mooy développement boo xamante ne da nga koy laltaaye sa ngëm laltaaye ko sa sa sa mbaax laltaaye ko sa cosaan laltaaye ko sa aada euh, tey jii bay lu ñu dunde ñaata tey ji ay sénégalais bu ñëwee Dakar Ndakaaru gii ñaata ñoo fa nekk ci ay njël yoo xamante ni boo leen waxoon ni dee leen reeree cere wala boo leen xëyee nañu xalaat ay xeetu tonk yoo xamante ni euh, du doon ceeb day nekk dugub wala mu nekk euh, mboq wala mu nekk wala mu nekk euh, ñambi wala mu nekk leneen lu dul ceeb ñaata ñoo lay wax ni yow mii danga ngaa wérut ceeb googu rek képp tey ba tey jii ñuy wax ñaata ñoo jàpp ni ceeb bi ñuy bayee ci wàll bi du ceeb bu baax te moo ne bu dee ceeb bi ñuy importé la ceeb lay doon boo xamante ne mbayu ñeenti at wala juróomi at wala lu ko ëpp lañuy ñuy indi tuddee leen ko riz parfumé wala riz nangam. ñu ci ngaf ngafi te xamuñ ni ceeb mu nga xamante ni moom la ñu bay mbayum ren ci waalo bi moo xam sayel bi la wala wala wala TCS 10 daa gën fop boobu nga xamante ni moom la ñuy euh, jëgaani bitim réew di ko indi fii ma nekk ni tey nii muy séddu gi ba ma ba may romb di ñëw maa ngi gis ay mango yoo xamante ne mi ngi bari mi ngi ñor mi ngi nekk ci àll bi Euh, li ñu mën a jaay ñu ngi ko teg ci suuf lal di jaay lañu ñu mënta jaay mu muy waaj a yàqu mu nga teg foofu nag yi ak mbaam yi sëdd ci te moo ne buñ ko defaroon ba mu baax ut ay industrie yoo xamante ne doon sax yu mag yu ndaw yoo xamante ne solaire lay doxee mën nañu transformer mango ba waxuma la dara xolli ko képp fejar ko def ko ci ay barket nga xamante ne amul benn valeur ajoutée boo ci yokku lu xanaa barket ba nga ci def taf ci ni mango saamin wala ma ma euh, mango udukaar dugal ko ci chambre froide yi indi ko ci euh, select yi nekk foofu noonu ci dëkk yu mag yi mu nekk valeur ajoutée boo ci yokk nit ñi am ci liggéey am ci koom yàqu gi wàññeeku yeneen yi nga xamante ni ci yàqu la la jëm naka jekk nga jël ko def ko vinaigre mu nekk vinaigre bu sell boo xamante ni mën na nekk loolu def ko fett si nii moo ko gën a yomb waaye dafa mel ni euh, sunu xalaatkat yi wala sunu njiit yi seen xel dafa gën a jëm ci la nga xamante ni mooy la ñu waa nouvel ordre mondial boobu di xalaatal ñu di ko ñu jóg jëm ci buñ la ay start ñu ne ay ci tey tey jii baat bu bees bi mooy start-up nañu ba ñëpp nekk ay start-up buñ euh, économie numérique yow économie numérique boobu au lieu ko nga xool noo siy jëfandikoo ba mu mën laa jëriñ waaye dangay ngay jël rek lu ñu indi nga ne dëndiix naan doo xaar doo xool man la lay jëriñ ak ban valeur ajoutée la lay indil di ci topp di ci topp di ci topp ba xëy ne mariix fee saa su ne diggante bi nga xamante ne moo dox sa diggante ak ñoom ci nga dab leen du mës a soppeeku développement doo ko mës a dégg loolu nag moo fi war a dañ loolu nag kenn ku ne da nga xool de xoolal lan ngay jëfandikoo muy loo xam ne dañ la ko imposer nga yaakaar ni mënoo koo ñàkk te xamoo ni dañoo dox ci sa xel ba fu mu nekk ni yow sa bopp yow sa bopp victime nouvel ordre mondial nga ñaata ñoo nekk si ñu suñu biir ñaata ñoo si ay victime nouvel ordre mondial boobu standardisation communication consommation boobu ñen ñoo si mucc si ñun ñi ñëpp dañu xoolaat bu baax développement lu yomb la maa la wax nii te par force danañ si jëm danañ si jëm waaye faw ñu jaar ci li nga xamante ni mooy suñu mbaax faw ñu jaar ci lii suñu aada faw ñu jaar li nga xamante ni mooy suñu cosaan si suñu lislaam bii nañuy jëfandikoo loo xamante ni fii lañ koy bayee bu ñu soxlaati diggaane dara mburu képp bu ñu ne tey jii mburu mi na na doon mburu mburu mburu mburu mburu suuna wala na nañ nañu jël blé bi mooy bay blé moo ci moo ci champion ak France ak ak ñooñu ñoo ñoo ñoo ne ci loolu mais ñun nañu fexe ba bu ñu mënut a euh, bàyyi blé bi yëpp yëpp yëpp kay Euh, mu nekk léegi xanaa boog cinquante pour cent cinquante pour cent wala boog euh, suuna si gën a yokk tuuti mel ni dem soixante pour cent ñu mos ci tuuti ñebbe ak dara mu riche baax ba noppi euh, ñi bay suuna seen prix daal di gën a bëgg commencé jóg jëm kaw bu defee koom-koom am waaye dara lépp lépp bitim réew lay lay jóge di ñëw doy na waa de masque yi képp de li ci chinois yi def ci kaañ kéemaan la de xajoon na si réew mi de maa ngi jégalu jërë ngeen jëf